mbokki internet yi mbokki salaam 7 TV fu waay mën a ne ci réew mi ak bitim réew mi ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a sell <coughs> muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa dellu siwaat nañ rek ci seen jotaay bi ñu baaxoo ànd ak yéen saa su mu di nooru nujum mu di xam-xamu biddiw wàllu astrologie leen leeralal biddiw yi horoscope yi tabia yi maanaam natiir yi rawxaan yi jour yi couleur yi incha allah tey ñi dikk ci képp ku juddu le vingt et un avril ba trente avril dikkoon naa ci le premier avril ba vingt avril kon tey ci àggale mois yi rek laay dikk incha allah mi ngi concerné képp ku judd ci le vingt et un avril ba trente avril dinaa dikk ci avril mai juin képp ku judd le 21 avril ba trente avril kooku sa horoscope dafay nekk Taureau sa bidiw nekk zoxrata zoxrata mooy Vénus sa couleur nekk vert sa tabia nekk trois bi suuf maanaam terre sa nature sa jour nekk àjjuma loolu moo aju ci képp ku judd le 21 avril ba trente avril ñu dikk ci mois de mai képp ku judd le 21 mai ba 31 mai le 21 mai ba 31 mai kooku sa euh, horoscope dafay nekk Gémeaux Gémeaux mooy mooy jawza sa biddiw nekk Utaarid Utaarid moo di Mercure sa tabia nekk hawaayu maanaam sa rawaxaan ngelaw lay doon sa jour nekk àllarba loolu moo aju ci képp ku judd le 21 mais ba 31 mai ñi dikk ci ñi juddu le 21 juin ba 30 juin le 21 juin ba 30 juin ñooñu seen horoscope dafay nekk cancer seen biddiw cancer mooy asurtaan seen biddiw nekk xamar xamar mooy lin seen tabia nekk maa iyu di ndox seen couleur nday nekk bleu seen jour dafay nekk altina loolu moo aju ci ñi juddu <clears throat> le vingt et juin ba trente juin incha allah dinañ dikk ci li des ci weer yi bu dee dégguloo sa date de naissance rek mën nga dugg ci biir chaîne bi nga dem playlist di nga ko fekk mbooleem vidéo yu ñu def ci wàllu astrologie nga dem ci vidéo yi ñu def ci wàllu horoscope incha allah boo xoolee foofu rek di nga gis sa date naissance boo ko gisul rek nga taaxeer lu ñu ab diir incha allah rabbi ah, da nga dégg sa date naissance te lii bu jeexee dina leen dikkal ci sarax yi dikkal leen ci melow nit ki ak yi mu war a moytandiku ak yi mu di jëf ci kàttanu suñu borom kon ñu ngi leen di tàgg foofu rek leen ñaanal jàmm ak salaam ak xéewal ak sutura yàlla na ko yàlla tuur ci askanu sunu gaal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf